koy doore waxtaane nag jamono ji rek lu jëm ci mbiruk eh, kii di élimaanu jëriñ yi di Amadou Ba bokk na ci nag ponk ba mu doon eh, waxtaane loole jëmoon ci salon international des mines maanaam nag la ñu duppee eh, SIM jàppale nag ni Amadou Ba moom nag yëkki nay kàddu rek daal di koy joxaar bi ñi nga xamante ne ni moom mooy société minière yi bokk na ci nag la muy waxtaane loo xam ne daal daanaka mënu su ko nangu ci jafe-jafe yi nga xam ne daal askan wi ñu ngi koy dund ci jamono ji nga xam ne yilee ko société ñu ngi woy rek di duufal seen Gafaka bokk na ci rek li nga xamante ne moom la gënoon a yaatal ci bile ka waxtaanam loole xëy na tam ne waata fang ca tukka le quotidien le quotidien dañuy rek wasaare yi lekk bénéfice jëm ci wàllu commune gi Amadou baax moom la muy wér rek jamono ji nag moom mooy doxalin gu baax ga mu xam ne rek ne entreprise yi nag dañu war a xam rek jamono ji ne xel mënuta nangu ñoom ñooñee ñu wéy rek di dox ci yoonu ko yokkute ci jamono ji nga xamante ne ni communauté yi ñoom ñu ngi rek wéy di nekk ci jafe lu yéene kaay xëy na ne ko fàng ci xëtam mu njëkk jàpp daal ne yëf yi dañu ko war a mën a mën a yemale bu ko defee askan wekk société yi ku nekk rek mën caa gis sa bopp moo tax naka mu ngi leen di woo moom Amadou Ba ñiy lekk industrie minière ñu fexe rek ba daal di tënkoo ci li nga xamante ni daal moom mooy norme d'exploitation ya rawatina rek anam yi nga xamante ni noonu la ñu ko wasaare fii ci réew ka Sénégal bokk na ci a yaatal ya lu ni mel la la dëggal nag kàddu yi nga xam ne daal Bougane Gueye Dany yëkkati woon na ko nag moom doon rek naqarlu anam ya ñuy amale luy mel moom mu jàppoon rek ni jamono ji daal impérialiste ya na mu leen duppee dañu xëy rek wéy bëgg a jël suñuy moomeel daal di koy def seen ko yëfi bopp état bi jamono ji buñ koy xayma sax dafa daal di rek détourné kopparu ko collectivité yi loole daal ginnaaw ba mu héberger ay société minière bokk na ci nag li nga xamante ne ni moom la la tribune yéenikaay xëy ne fàng ci xëtam wu njëkk enquête yéenikaay ci wàllu politique tey ji waxtaane nag ñi nga xam ne ci biir euh, mouvance présidentielle bi la ñu ne ñoom ñëpp daal di rek samp seen i ndënd euh, ngir wutali présidentielle yatum 2024 lépp nag fukk rek ci ay mbër lañu yoo xamante ne ni ñoom ñëpp ñu ngi ci rangu majorité bi lee li ko dalee nag Jolof Njàmbur ak Fulaadu dafa mel ni ku ci nekk daal gëm nga sa bopp ci lekk candidat ñoom ñëpp nekk nag ñoo xamante ni ndax am nañu ci ab ëllëg bés nañu nag di ko samp nege ni ab la keneen ku ñuy laaj moom mooy Ousmane Sonko mi nga xamante ne ni ginnaaw ñu tas partem tasar bokk na ci nag tamit fiche parrainage yi nga xam ne daal neen nañu furaas du ko jot Ousmane Sonko des rek damanu ji di ko naqarlu ak naataangoom des rek di tekk ay recours recours la sax boo xamante ne ni daanaka agent judiciaire ba jot na ko jot jamono ji buñ koy xayma njiital gu njëkk bu cour suprême daanaka mënees na jël rek dogal bi daal di ko joxe fi lekk ëllëg bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango ca booruka source a dafa mel ni njiitu réew Macky daal la ñu fa tey ji bokk na ci nag euh, ndaje li nga xam ne daal doxoon na digganteem ak euh, waa parteem jàpp leen ne chiffre 117 bokk na ci nag la ñu fay waxtaane mu mel ni daal loole euh, benn boo ci jël rek tegaat ca benn boole ko ko juróom-ñaar dafa mel ni rek juróom-ñeent la ñuy am ci wàllug lim gi muy loo xamante nag bu ñu sukkandikoo ci source a chiffre nag bu am solo la ndaxte chiffre 117 moome bu ñu koy xayma yéenekaay bi nag nee na àll muyin lay joxe nag muy benn rek ci yàlla ya ñaan nañu yéenekaay bi euh, jàppale ne moom njiitu réew Macky Sall euh, moom ma ngay gisaane loolee bokk na ci euh, la mu ne fànkate ji nii mbiruk DG bu Dakar tam source a yéenekaay xëy na ci dañu xamal daal ne dossier ba dafa mel ni daal mu ngay gën a tàng jamono ji ndaxte procureur mi nga xam ne nag moom dañu ko saisir ci dossier bi jot na ko jël jébbal ko ki nga xamante ne ni moom mooy ab juge d'instruction jàppaleen sax ni naganité ji lañ leen fa fas yéene déglu coola loo xamante ni rek bokk nañ ci kañu cay tudd rek xamante ne ni moom mooy directeur général lu ko bilee ko société ak directeur technique société boobe ñuy di teg plainte ga wallu ko njàng ak njàngale alerte yéeni kaay moom xëy naka tey ji ne fàng ci xëta mu njëkk rek jëwriñ bi ko gàlloo di Moussa Baldé moom nag eh, yor njàng mu koy mekk recherche ak innovation moom jamono ji nag mu waxtaane li nga xam ne daal moom la ñu war a gën a mën a teg ngir njàng mu am solo bokk na ci nag jamono ji promotion compétence li nga xam ne daal moom mooy qualité système d'enseignement supérieur ak wërga bokk na ci daal loo xam ne daal moom moo may ma nga ko jiital ca libération yéeni kaay la ñu fay waxtaane tey ji bokk na ci daal coowal Barça wala Barça ak xeex bu métti bi nga xam ne gis nañu ko ca boru ko jokku la loolee indi fay jafe-jafe yéeni kaayam nag di ñu wax xamal daal ne jamono ji ji ñanteeg sàcc moteuru gaal daal moom mooy li nga xamante ni moom moo waral cooloole ba ñu nemmeeku ca daal ay doomi adama yoo xam ne jëlee nañ cooy gaañu gaañu kenn sax jot ca faatu jamono ji bu ñu koy eh, xayma ci wàllu ko tàggat yaram euh, la tribune sport xëy rek di ñu xamal jii ne wàllu ko ligue des champions jàppale ne euh, Racing Club bu Lens daan na démb ñooñee di waa Arsenal ci jongante bi nga xam ne moom moo doxoon seen ak diggante Racing Club bu Lens bu Nampalys Mendy nag jël place bu njëkk ci kanamu gënal su Arsenal ca booru ko Old Trafford United dañu ko rek làppati ñetti bal ci ñaar ginnaaw bi nga xamante ne ni Galatasaray jot na fa jaar léegi tey jii nag daañu wel bi léegi programme ak jongante yu ci mel ni Porto ak Barcelone wala bokk. Manchester City ma fas yéene wutali réew ko Allemagne ngir dal di fay jongante ak Rasenball Sport Leipzig mi nga ko mbokk yi muy nag li nga xamante rek am moo gënoon a fës ci tukka yëglekaay di leen bàyyi rek ngeen wéyal seen matinale folo Sénégal ak Aïcha Diaby